asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi di dellu ab nuyoo su gan ñu tedd ñu fi ñëw ci njiital sëriñ Abib moom sëriñ Fallu ànd ak ñu mu ànd liggéey bi ci dikk bi te yàgg koo def te ñu bi di ko gis di ko rafetlu te jënu ñu dikk fii di ci waxtaan man loolu seen bu baax rek waaye liggéey moom ñëpp ku baax ku ne si sa rafet rafetlu nga ko itam man maa ngi jàpp ne li ngeen def tey li ma mën a firi ci sama mbokk sama bopp mooy yaru labbali la ci man ndax li ngeen di def def naa ku koy def ku ne euh, ku bokk ci Seexul Faatiha ci war jiitu ndax borom dëkk bi sanc loo na ko dëkk bi yetti yoon bu ci ne mu wax ko ko bëgg mu defe ko ne kon defe naa lu lu waay def ci dëkk ci lu jëme dëkk bi kanam mën ci war a jiitu wax na ma ne bu mujj bi mu ko mujj sanc loolu da ko woo ci njaareem mm-hmm. na ko dama bëgg nga dem Touba mm-hmm. sancaatal ma dëkk mm-hmm. te na nga jëkk yent kër yu mag yëpp muy kër gii fi mag gi fii jumaa ji fii nekk tey ci néegam boobu tudd baytu foofu mu tudd baytul ak këru daaru xulus ak këru daaru ak këru daaru rahman gi mooy feeñoo ak kër sañ ba na ko yent kër yëpp nañ ko def ñeenti téeméeri xasab yet gu ne te fu mu nii na fa nekk fu fu barag a nekk fu a nekk na suufu tubaab si yëpp nañ ko dajale dal ko jël ko gas ko suul ko li féete woon ko lépp féete suuf li féete woon suuf féete ba dëkk ba daj waaw lépp dañ koy jal di gas di suul ba dëkk bi daj te na koy lépp nañ ko lépp nañ ko def sànga mboolem kër boo tax fi xewegu sa sañe doxalus neta nee na am na borom door am na fi yaadaat yoo xam tànkam demul door musti ba noonu lañ topp dëkk bi jël ko lépp gas ko suul mm-hmm. sancaat kër yëpp nañ ko ko waxoon ba liggéey bi àgg mm-hmm. kon na defe naa tey bu li xewee ñun ñoo ci war a jiitu te ndax loolu fi nekk nag dañ fas yéene saxal te duñ ko te duñ ci jóg mukk kër gi bi ñu koy fondement jamono Alaaji Baara la moom fa dama ñaan la ko ñu wax ko ginnaaw bi am nañu fa dem ne ko maam si wàllu lim sim fii daa xamul taxawaay loolu daag Alaaji Baara ne ah maam Cheikh lu mu sëmb dina àgg la mu defal baam ci penc mi de ku ko def ngir yàlla loo sëmb te yàlla ànd loo sëmb yàlla ànd la ko ba mu dikkee ne ba kooku dikkee ne ma ne ko tawax bi yàlla seere ne ma fanaan si taat néem gee laa yemale daal jël sëñ Tuubaa rek laa jublu waaye mu ci benn soxla bu fekkee sama bakkan tax yàlla bu ma ko fekkee yàlla màgg waaw te loolu yëpp moom la fas yéene ba faaw amiin amiin amiin amiin ndax maa ngi jàpp ne loolu sëñ bi fa defoon man mii la war maa ngi maa maa ngi war a tabaxal dëkk bépp ku nekk ma tabaxal na nga ko bëggee nga dem dëkk te daal lu la ci war loolu mooy sama yéene kon li ngeen def sant nañ ci bu baax a baax parce que nañ ci tax yéene taxaw ci saa yu si baax lépp luñ ci man te lu nga ci nekk noo koy ànd waaw tey nag bett ngeen ma waaye na waaye nag naa amino kon barkeeloo ko ñu tàmbalee ko sëñ bi fii nii sëñ mu taxay moom ku ne xam ne yéene moom amul genn bëgg gudu sëñ bi rek amul yenn yéen ju liggéeyal sëñ bi kon ñun ñu topp ci moom bu ñu amee jum war ko jàppale bu baax a baax loolu rek mooy suñu yéene ñun ñëpp incha allah rabbi. waaw lépp lu ngeen ci nekk rek maa ngi ci fu ci war a féete rek nañ ko yëg taxaw ci nan ci war a taxawee. nit yëpp jox naa leen ci ndigal itam fu waaye mën a na nga ci def sa loxo def ci sa itti def sa wërsëg fekkee ci ndigal ngay wéy loolu rek laa jox bi yëpp ndigal ci réew mi ci bitim réew te kii seeral si mu nga nekk Paris mooy Saxaw Balla Jongo waaw moo tax mu fekk ko jotaay bi kon nag ndigal ndigal ni ñëpp laa ko jox waaye nag kenn ci def loxoom te xam ne si waaye defal sa bopp nga ko defal waaw lu Touba jëmee ci kanam mooy sunu jëm kanam waaw mooy jëm kanam ku yaakaar sëñ Touba kon nag si ñëpp góorgóorlu bu baax rek nga ñëpp ñëpp teew seen bi si liggéey bi leer na nañ <laughs> ku ne teg na ci